ca yoonu suuf ba nag la daal di jaar waaye nag ab geste bu rafet boo xamante ni nag daal nañ koy gis gannaaw mu daal di romb ci ab village tombek la nga xamante ni sax moom moo di waxtu julli jot na moom naka noon la daal di wàccee otom def tànku neen jubali ba ca jumaa ji rek ngir daal di amal julleem laata rek mu yéegaat door la nga xamante ne moom moo di trajet am jamono ji nag mu nga ca yoon wa oto yu bëri daal di koy topp rek mu génn Sigicoor utali diwaanu Ndakaaru daal di koy duppee sax caravane de la liberté loolu nag gannaaw diir bu yàgg nga xamante ne def na ko foofa ca diwaanu Sigicoor mu ngay dellu rek Ndakaaru jamono jooj nag fekk na fa nga xamante ne fa la daal di dëkk rek ca Ndakaaru muy cité kër góor gi ñii di militant ya ñu nga taxaw rek di ko xaara barricade bi les secteur rek ngir daal di sàmm kaaraangeem loolu nag ab teertu sax lañ koy daal di waajal rek moom Ousmane Sonko.